mbokk yi ginnaaw ba ma leen nuyoo yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam ziar leen di leen ndokkeel ci weeru koor bi di ñaan sunu borom nangu ñu sunu koor ak sunu jaamu yàlla eh, lépp luy ngëneel it mu defal ñu ko lépp luy ngëneel lu weeru koor mu may ñu ko nangul ñu ko. ma bëggoon rek ci avec votre permission bien sûr dellu siwaat sur un événement tragique boo xam ne ni mi ngi dal un citoyen sénégalais un père de famille muy l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall ndax bu ñu wàññee xëcc à gauche nuyu naa la lu bari borom yus euh, nuyu naa nee na mi ngi nuyu borom Houston xëcc Cheikh Doudou Mbaye nee na ma koor gi di nga ci nelaw be wallaay kanam kanam gi mel nii mu rek waaye yeewu naa bu yàgg <clears throat> dama bëggoon attirer attention wu sénégalais ci lii nga xam ni. au-delà de politique partisane nekk na une entrave aux libertés individuelles dama bëggoon moo tax boo leen gisee ñaari photo yi ma superposé sama ginnaaw jël benn photo Khalifa Sall boole koog benn photo Mamadou Dia dafa am message bu ci ciy bëgg véhiculer mooy bu ñu comparer jaar-jaar seen ñoom ñaar kii lii muy dund tey en deux mille dix-neuf moom Khalifa Sall Mamadou Dia dundoon na ko depuis les années mille neuf cent soixante-trois mille neuf cent soixante-quatre huit cent jours tey la Khalifa Sall di def ci kaso bi ngir lan il avait l'ambition élection présidentielle yi weesu mu présenter sa candidature voilà un citoyen sénégalais qui avait fini de faire ses preuves au niveau de la mairie de Dakar yoroon ay programme yoo xam ne Dakwara yi ñoo ko ko dénk mu ko doon doxal ñu fal ko en 2009 mu def fa liggéey bu mucc ayib Dakwara yi wóoluwaat ko dénkaat ko les rênes de la mairie en 2014 lii nga xam ne nag ñu ngi ko doon jëm Dakar mi ne da koo bëgg yaatal ci Sénégal bi yépp nguur gi ne du ci dal donc ñu gis loo xam ni amoon na fi le régime bi nga xam ne dem na ba instrumentaliser la justice instrumentaliser l'Assemblée nationale pour rek bare la route à un potentiel candidat Khalifa Sall est en prison juste parce que le président de la République, Macky veut qu'il soit en prison. Khalifa est en prison par la seule volonté du président de la République, Macky Peut-être que ñoom ba ñu koy tëj ci kaso bi xëy na jàppoon nañu ni bu sonnee dana mujj nangu ñoom seeni proposition ànd ak ñoom bàyyi mais huit cent jours aujourd'hui Khalifa nekk ci kaso bi kenn ci yéen mënuñu indil une preuve palpable buy démentir que li lii c'est pas un procès politique kan tey moo mën a démontrer exactement avec certitude que ni lii du une cabale contre l'ancien maire de Dakar contre l'ancien député maire de Dakar alors pourquoi ma ne naa def tey cette étude comparative là des deux cas Mamadou Dia mi nga xam ne ni il avait été victime du de Senghor ak tey kii nga xam ne moom mooy Khalifa Ababacar Sall pourquoi cette étude lan lay wane que président de la République mun na instrumentaliser tous les autres pouvoirs au Sénégal pour arriver à ses fins et là et là c'est là où c'est grave Sékou Montero C'est là où c'est très grave. Quand un président de la République waxuma rek les pouvoirs que lui confère la Constitution qui sont d'abord exorbitants am na benn boroom xam-xam bu koy wax nee na le président de la République au Sénégal lenn rek la mënul mooy judduloo nit ak dekkiloo nit judduloo nit ak dekkiloo nit ñaar ñooñu rek le président munul sinon constitution bi ni mu mel nii le président de la République au Sénégal a tous les pouvoirs même de mort sur ses concitoyens bu ko neexoon tey noonu mu lay tëgloo noonu lañ lay reyloo pourquoi on parle toujours de Blondin il y a d'autres xam ne xëy na yëguñu ko le commissaire Diallo d'autres yoo xam ne régime bi su bëggee pour jug faagaagal la day jug faagaagal la te du mujj lan moo tax. mu garaaw mooy boo xoolee Mamadou Dia ginnaaw bu ñu génnee ci la crise de 62 accusé ko revenons sur les qui a été à l'origine de la crise les députés votaient cette motion de censure pour daaneel euh, euh, le gouvernement de Mamadou Dia. Au fond, quelle était la cause principale bi tax ba dem ba indi mu am benn crise boo xam ne Sénégal mënoon dafa jaar suux ba faw peut nous rappeler la cause principale wala boog l'une des causes principales de la crise de 1962. Pourquoi les députés d'alors ont jugé nécessaire de voter une motion de censure pour daaneel le gouvernement de Mamadou Dia qu'est-ce qu'il reprochait à Mamadou Dia qu'est-ce que Mamadou Dia reprochait à ses députés gis naa ci livre histoire buy relater jaar-jaaru Sénégal les conquêtes démocratiques Sénégal histoire des conquêtes démocratiques l'auteur mi ngi naan tolloon na jamono joo xam ni certains dignitaires du régime certains ministres certains députés pendant que le gouvernement de Mamadou Dia dafa instauré woon benn régime d'austérité pour lancer l'économie à partir de l'agriculture, de l'élevage. donc sa priorité mooy xaalis bi Sénégal am nañ ci fay d'abord baykat yi jox leen jiw Sénégal dafa war a reposer wu ci lii nga xam ne ni moom lay produire d'abord di ci dund après jaay donc ci régime d'austérité boobu bala même les fonctionnaires di fayeku li nga xam ne moom la ñu yoreel paysans yi dañ leen koy jox ba noppi ci benn ci ay voyage am xam ngeen temps yooyu voyage yi daanul gaaw di tey ba mu demee tukki tukki bi yàgg certains dignitaires du régime mu doon ay ministre ak ay député dem jël ay det lépp xaalis boo xam ni ñu ngi compter ci nguur gi pour fay ko parce que lan c'était des dignitaires war nañoo am beneen toogaay bu ñu mën a nekkee ci seeni gox ba Mamadou Dia dellu dellusee fekk fa problème bi mi ne képp koo xam ne jëloon nga det nanga ko remboursé kon ay privilège ay privilège moo nekkoon ci ginnaaw ñi nga xam ni ñoom ñoo déclenché le processus bi indi le renversement de Mamadou Dia ay privilèges ils ont voulu ñoom conserver seen privilège bopp pendant que kii mi ngi doon tracer pour teg réew mi ci ay euh, maanaam euh, yoon boo leen dégloo il y a quelques années de cela deux à trois ans pendant mi mi tur était premier ministre même lu gouvernement de Macky Sall mi ngi doon dafa doon dellu si ci yenn politique agricole yoo xam ne Mamadou Dia l'avait théorisé depuis 1961 mooy les DAC yooyu ngeen di dégg les DAC yooyu kii agricole communautaire yooyu ngeen di dégg c'est en 61 que Mamadou Dia l'avait théorisé ñoom ñu ngi ciy dellu si moom mooy indi scandale Prodac. voilà quelqu'un boo xam ni jug pour liggéey réew mi jug pour liggéey réew mi ñu fexeel ko ñooñu ko fexeel lan moo tax ñu fexeel ko mooy des privilèges personnels ba mu ñëwee ne léegi ñoom dañuy fay ba mu ñëpp dañuy fay xaalis boobu Serigne Monte Secou la ne léegi dañu koy daaneel. voilà au fait lii rax ci la crise de 62 ba nu ñu daanelee Mamadou Dia ba nu ñu ko emprisonné. boo jëlee loolu nga calculer nga nga nga comparer ko ak ce qui à Khalifa Sall mooy lan un président qui est là voulant conserver ses privilèges il va instrumentaliser la justice il va instrumentaliser l'Assemblée nationale il va corrompre les chefs religieux et coutumiers pour que am ñoo xam ni du ñu bokk ci élection yi et pour cela jaral na ko mu tëj leen kaso huit cents jours aujourd'hui que Khalifa Sall est en prison juste pour lan parce qu'il avait l'ambition de diriger ce pays-là amul une autre explication keneen ku lay jéem a expliquer leneen ay rêve la lay wax voilà une injustice qui nous a fait perdre un Mamadou Dia moo tax ndeysaan booy déglu ci benn reportage bi mu benn entretien bi mu def benn interview bi mu def mi ngi wax ni li ko Senghor tëj kaso moom mun na ko koo baal li mu fa jëlee ci conséquence mun na ko koo baal waaye lenn rek la mënut a baal Senghor mooy le Sénégal était tellement bien parti ñu damm élan boobu. juste pour des euh, pour des euh, raisons crypto-personnelles. Voilà aujourd'hui, après Mamoudou Dia, ñuy ñëw un autre Sénégalais boo xam ne les seen les Dakarans ont fini par être d'accord que ni voilà quelqu'un qui a une vision voilà quelqu'un qui commence à travailler lu nguur gi di def ne nañ ko fexeel nañ ko jaarale fi ñu jaarale woon Mamadou Dia nañ fexe ba taxal ko tëj ko ci kaso bi du génn ci kaso bi wala même buy génn ci kaso bi aussi day perdre tous ses droits civiques alors là mon petit frère Pape Bokar Diallo qui dit rien ne justifie aujourd'hui le maintien de Khaf en prison non c'est pas le maintien de Khaf en prison qui n'est pas justifié c'est le fait que Khaf soit en prison qui n'est pas justifié voilà pourquoi je suis pas d'accord avec certains Sénégalais avec mon petit frère Pape Bokar Diallo pourquoi avant les élections vous avez supporté celui ngeen supporter l'emprisonnement de Khalifa Sall et vous saviez en âme et conscience que c'était pour des raisons politiques et aujourd'hui et on veut défendre que ni rien ne justifie son maintien en prison non rien ne justifie sa présence dans les geôles du foofu foofu rien du tout et nag yaa quatre ans de cela j'avais alerté les Sénégalais ne leen jalo yi Macky Sall di teg ça me rappelle un Pierre Nkurunziza du Burundi voilà quelqu'un qui se qui complètement des lois euh, voilà quelqu'un qui se fout complètement de ce que la population pense lenn rek il veut être président il veut remplir il veut un deuxième mandat il l'a maintenant il a un deuxième mandat il veut un troisième mandat il l'a quitte à ce que le pays brûle c'est pas son problème aussi longtemps qu'il aura l'intention de rester au pouvoir moom Pierre Kourouguisa il va utiliser lépp loo xam ne voies et moyens la pour se maintenir au pouvoir c'est la marque des tyrans c'est la marque des dictateurs c'est la marque di nga xam ne ñi nga xam ne euh, euh, euh, nguur rek la ñuy gis des obsédés c'était le même cas avec Blaise Compaoré benn sama benn jigéen dañuy waxtaan mu nekk nag APR bu pur bu dëgër ma ne ko est-ce que xam nga Macky Sall il de reporter les élections législatives mu ne ah waaw waaw sax élection yi commencé bari Sénégal mu ne ko est-ce que xam nga ne à ce rythme là ci dictature lañu dem mu ne ma mukk ko bu doon dictature kon duñ ko fal ma ne ko dictature ci àdduna yàgg nay jóge ci ay urne ma ne ko bi gën a garaaw da ngay jël Hitler xanaa xamoo Hitler coup d'état ko ci boppu Allemagne ay élection la jaar ba nekk ci chancelier ba te njëkkoon na bokk ay élection mënul woon am majorité pour nekk euh, chancelier mu bàyyi ba kër ba muy am majorité pour nekk chancelier bul dégg ni nekkoon na dans l'armée rek nga foog ne ci militaire la mu def coup d'état déedéet il a passé par des élections élections yooyu la jaar ba nu muy nekkee chancelier wu Allemagne ba mu nekkee chancelier Allemagne nag ci par fan lay jaar par ay loi lay jaar ba ni muy imposer li nga xam ne moom mooy régime am boobu René Thiombane bonsoir. waaw bonsoir grand. waaw grand maa ngi nii rek koor gi ma jàpp quoi looloo tax. waaw mais noonu la koor gi la <laughs> namoon naa la yaa ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla. naka monsieur mon voilà ils vont man mii man maa xawoon sonn tuuti rek mais bon sant yàlla. yàlla baax na grand grand xoola fu mu toll en fait. il y de la responsabilité de tout un chacun en fait mm. parce que Macky Sall lu mu mënta def rek dafa fekk ne am na ñoo xamante ni neex na de. tout à fait. waaw te euh, aussi bon on va on va pas polémiquer revenir en arrière parce que jëm ci kanam moo gën quoi parce que tey jii nii ku ñu képp ku mu mënta doon que mu nekk Khalifa Sall que mu nekk qui que ce soit même l'étudiant qui n'a aucun moyen pour se défendre devant la justice kooku c'est égal à Khalifa Sall en fait right. et c'est désolant mm-hmm. tey bu fekkee ni ñun on oh, man terme yu utiliser man franchement jomb naa wax ko parce que terme yooyu adéquat wul ak monde bi actuellement lan lu mu wax parce que un pays émergent c'est un pays pauvre et très endetté aujourd'hui on doit opter pour se développer pour se développer il faut que jigéen yi takk seen sër góor yi takk seen tubéy wax bi yëpp loolu maintenant nag lu ñu bëgg ñun ñoo ko xama ah. boo buggee yomb doo am lu li nga xamante ni moo la gën a boo buggee lu nga li la bu fekkee li nga bëgg dala ñor da ngay ñafe nga fighting xaalis kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey mhm. waaw man loolu laa amoon lu may wax merci René maa ngi lay sant bu baax <laughs> c'est gentil merci <laughs> donc ñu koy remercier baax René Thiombane alors pour vous dire que cette injustice qui s'abat aujourd'hui sur Khalifa c'est pas la première fois que muy arrivé dans l'histoire du pays ku xoolaat bu baax ni nga xam ne foofu lañu jaare woon ak Mamadou Dia tey foofu lañu jaar ak Khalifa Sall et combien de fois la ñuy toog ñun sénégalais ñu jël ñoo xam ni wóor nañu nit ñi war nañoo mën a indi dëkk bi dara yóbbu dëkk bi fenn mais juste parce que quelqu'un a les pouvoirs mi ne kii kat du ma ko bàyyi mukk ci kër àdduna muy présenté damay def tubaab di ko te pourtant moom buñ ko defoon noonu tey du agsi fii kon dama jàpp ni. c'est une responsabilité partagée tey ce qui arrive à Khalifa Sall et ce qui mooy moom moo nekkoon daloon Dia mun na dal ñeneen suba ci ay doomu sénégalais yoo xam ne leur seul tort c'est d'avoir des ambitions et pourtant Dieu sait que ni ñooñu seen ambition yooyu mënoon nañu yóbbu réew mi na fu sori kon tey bu ñu demee ba compter huit cent jours Khalifa Sall te dëdd ci kaso bi du rek parce que Macky Sall moo ko bëgg nee na grand personnellement je ne regrette pas mon vote et si c'était à refaire je le referais c'est normal Pape Bokar Diallo je te comprends c'est normal ñëg moo leen jàpp ah voilà nee na euh, lisez Pape Bokar Diallo nee na grand personnellement je ne regrette pas mon vote et si c'était à refaire je le je le je le moo tax j'ai du mal à donner à donner benn once de crédibilité à ceux qui disent que tey Khalifa Sall doy na parce que gëmuñu ko en fait parce que nee na léegi xal il a que doy nañu génne ko c'est pas polémique mais dañuy waxtaan nee na doy nañu génne ko mais si c'est à refaire il va encore donner à, à, les moyens de mettre Khalifa Sall en prison vous y comprenez quelque chose nee na aujourd'hui notre pays a besoin d'apaisement et de travail on ne peut pas parler de développement dans un climat de perpétuelle tension Avant les élections, l'attention la ne les intéressait pas. Avant les élections, est-ce qu'ils ont appelé à libérer Khalifa Sall? Aujourd'hui qu'ils ont ce qu'ils ont qu'ils aujourd'hui qu'ils ont leur deuxième mandat, ñu ne ils appellent à la, à, l'apaisement. Maintenant, on peut brandir on peut brandir la paix sociale, la stabilité du pays. C'est le c'est ce problème que j'ai avec certains euh, c'est le problème que euh, j'ai avec certains Sénégalais parce que moi je crois que ni képp koo xam ne rek ni jàppale nga Macky Sall ci cette injustice bi là moi je te mets au même pied d'égalité que Sall pour man yow fii boo fay toogoon tu feras pire que Macky parce que da nga gëm loolu moo tax nga jàppale ko ci loolu on emprisonne des gens des pères de famille des mères yu ñu défenestré de de leur fauteuil yu ñu jëlee de l'Assemblée nationale après on dit maintenant apaisons apaisons apaisons sama sëriñ Eva gisee maa ngi lay ziar lu bare bare bare man problème boobu laa am ak les Sénégalais le principe bi ñu doon défendre démb tey mën nañ ko mën nañ ci jóg dem défendre leneen pour lan au nom de la stabilité nañu leen bàyyi mais ana li nga leen doon toppe bu fekkee li leen doon toppee dëgg la tu ne dois pas appeler à que ñu bàyyi leen bu fekkee yow d'accord nga ni moom moo jël un milliard huit cent kon na tëdd cinq ans mi na nga rester ferme sur ta position. c'est parce que ñoom ñëpp ils savent en âme et conscience que c'était politique fu mu toll dañoo am euh, benn benn mal ils ont mal. dans leur conscience dans leur âme mënta ne on ne peut pas être fier d'un vote qui s'est basé sur de l'injustice donc yow injustice boobu da nga da nga cee fier tu es fier d'avoir accompli une injustice tu te réclames d'avoir euh, bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo tax seen injustice la am aujourd'hui c'est pas Senghor lui seul qui a emprisonné Mamadou Dia c'est Senghor ak ñi mu àndal ak ñi ko toppoon aujourd'hui c'est pas seulement Macky Sall qui a emprisonné Khalifa c'est Macky Sall ñi mu ànd ak ñi ko toppoon c'est c'est leur responsabilité à eux tous comme il a été de la responsabilité de tous ceux qui ont supporté Hitler ba mu balancer ba mu euh, euh, maanaam euh, créer deux guerres mondiales tous ceux qui étaient derrière eux qui le supportaient ak ñi nekkoon même dans les populations ils étaient responsables moralement Alors moi, tout apérisse, toute personne qui a voté pour Macky Sall, moralement, tu responsable de la situation de alors apaisé d'accord mais il va falloir qu'un jour ou l'autre que ce compte-là soit réglé et si on y prend garde bu fekkee nguur gu ñëw ku la neex mooy bokk ci ay élection soo exilé wul Karim Wade yaa ngi tëj Khalifa Sall ci Burundi la ñuy mujjee lay yoot Burundi rek moo ñuy yoot Macky Sall ak Pierre kif kif Macky Sall ak Compaoré kif kif Compaoré certes coup d'état la jëlee woon réew mais après li doon def yépp da doon def par la voie légale assemblée nationale la daan jaar di organiser ay élections neex di maintenir au pouvoir kon tey bu ñu jàppee ni Macky Sall mi ne va pas faire comme Compaoré wala ne va pas faire comme Kourouguissa on est en de foutre notre doigt dans l'œil parce que il est pire que moo leen raw bien sûr que mon jeune frère Pape Bokar Diallo tu dois être fier de ce que tu as fait qui se ressemble s'assemble c'est normal mais désolé quand tu me dis que il est temps de le libérer je ne croirai pas à bonne foi c'est ça le problème aujourd'hui je suis désolé mais je ne croirais pas euh, à la bonne foi de képp koo xam ne ni un grand tu sais très bien que je suis pas de l'appel je suis socialiste et homme de gauche convaincu je t'invite à reprendre mes nombreuses conclusions dans le journal Le Quotidien j'ai appelé les députés à user de le pouvoir de faire stopper le... euh, quoi bon d'appeler les députés de les poursuites et ensuite aller voter pour ce, ce, celui qui, qui les a envoyés. Pape Boka Diallo, je ne comprends pas, mais ça va pas être benn échange entre nous deux quand même. 800 jours, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Khalifa Sall est en prison. 800 jours. ñu koy toppee un milliard huit cent. bañ ci tolloo. ay mbokkam dajale plus de deux milliards et quelque di mat trois milliards teg ko sur la table du juge l'ancien dem nee na en matière bi ñuy toppee Khalifa Sall buñ la laajee nga fay wala nga indi caution bi lan moo intéressé état bi c'est l'argent qui l'intéresse parce que dañ ne da un milliard huit cent ñu ne la fayal ngeen di plus de deux milliards teg sur la table ñu ne la bëgguñu sa xaalis bëgguñu nga fay il faut que ñu tëj la il faut que ñu tëj cinq ans pour te priver de tes droits nga dem CEDEAO CEDEAO jox la dëkk ne leen kii da ngeen ko tëj ci kaso bi en violation de tous ses droits waratu woon des ci kaso bi une minute vous faites fi de ce que dit la CEDEAO et pendant ce temps nous autres Sénégalais soit nous sommes avec le pouvoir donc nous sommes d'accord sur ce qu'on nous sommes pas avec le pouvoir mais nous sommes pas avec Khalifa tout en se disant peut-être que ok le malheur de Khalifa peut faire être notre bonheur ce qui peut être faux les Sénégalais n'ont pas pris ce problème-là comme étant leur vrai problème tey Khalifa nguur gi mën na ko def lu ko neex waaye bés bu ci pare nañu fàttaliku rek nañu fàttaliku ni avant xalifa lii amoon na fi du fi gulet te bu fekkee ni saa nguur gi jóge bu soxlaa kenn ne kii foog ma faagaagal ko ñu seetaan ko bu ñu mujj buy ñëw ci ñun buy agsi ci ñun keroog bu ñu bu ñu daw nañu assumer mbokki yi l'heure est grave et nous avons en face de nous quelqu'un qui appelle au dialogue dégg naa sax mu naan woy il va accéder à la demande d'une partie de l'opposition maanaam jël personnalité neutre gëmu ci dara lenn moo ko ñor fu mu toll nii tout faire pour reculer les élections locales et les élections législatives de 2022. luñ ci munti waxtaan luñ ci munti teg ko intéressé koo xam nag ni le calendrier républicain t'importe peu la liberté des gens t'importe peu. nañu def attention bu baax a baax a baax a baax a baax Abdoulaye Wade dafa waxoon lu am solo ne il ne va jamais marcher sur des cadavres pour entrer au palais duma ko waatal Macky Sall de je sais ni il est prêt à marché sur des cadavres pour pour se maintenir au pouvoir c'est un assoiffé c'est un obsédé te nag dafa am un deuxième facteur le plus important mooy la plupart des décisions prises n'émanent pas de lui mais de sa femme la plupart des décisions n'émanent pas de lui mais de sa femme jabaram moo taxaw tembe ci kanamam ne ko Khalifa Sall du génn y a pas de sentiment en politique alors est-ce que yéen a ngi fàttaliku la femme de Ceausescu comment elle s'appelle c'est encore mu tuddati la femme de Ceausescu bu Roumanie yéen a ngi fàttaliku la femme de Ben Ali yéen a ngi fàttaliku Simon Gbagbo ces femmes qui avaient le pouvoir entre leurs mains foofu la Sénégal tollu tey ce pouvoir qu'incarne Macky Sall est offert entre les mains de Marème Faye Sall qui en fait ce qu'elle veut. Et elle a en politique y de sentiment li ñu bëgg bu ko naree am bu naree jaar ci l'emprisonnement de Khalifa Sall on va on va passer par là ce qui a guetté la Roumanie, ce qui la Tunisie, ce qui la Côte d'Ivoire parce que lan jaboro ñu leen jiite woon nu ñu mujjee woon jàpp ne ñoom lañu fal te seen jëkkër yi mënu woon dara foofu la Sénégal tollu tey c'est ce malheur là que nous vivons aujourd'hui C'est ce malheur-là que nous vivons aujourd'hui. Et pour terminer, je vais réitérer mon appel à l'opposition sénégalaise. waxuma CSA disant noonu na la ñu ñooñu ma ay naafeq lañu xam buñ ne la yaa naafeq ni noonu na la ñu rek xamal ni mooy dégg nga buñ ne la yaa naafiq ni noon aligné mooy dee nga ils font semblant d'être dans l'opposition mais tout en étant au fait des taupes du pouvoir moo tax foo jugee ñu ne ah non aligné y a pas de non aligné buñ ne la yaa naafiq ni noon aligné rek dee nga ñoom la Macky Sall du utiliser pour faire son sale besogne mani j'en appelle à la responsabilité historique de l'opposition sénégalaise lii doxoon seen diggante boobu ba tey di leen diviser mooy yiri des intérêts crypto personnels tant que leen ko pour former un seul bloc et faire face Sachez que nous avons pire que Kurungiza. Nous avons pire que Blaise Compaoré. Nous avons plus que Ceausescu à la tête de ce pays ñu ngi toog fi naan deuxième mandat que troisième mandat kii il compte s'éterniser à la tête de ce pays. il n'a rien d'un démocrate. wolof day lépp ne xol li ci njëkk des ca. c'est un maoïste pur et dur. un communiste pur et dur. un communiste ne croit pas en la démocratie. Il peut essayer d'utiliser la démocratie pour arriver à ses fins, mais un communiste n'a jamais été démocrate. ñoom ñoo nekk Chine ñoo nekk Cuba ñoo nekk Venezuela ñoo nekk URSS loolu mooy communiste. Et Macky, ses premiers amours en politique, c'est le communisme, c'est Mao Zedong, sa, sa, référence suprême. xëy na pour arriver à ses fins il fallait que mu jéem a jaar ci ay parti politique dugg na euh, AJ xam na ne foofu du dem mu génn dem PDS parce que bugg na nekk ci nguur gi PDS tey yàlla jox na foog nguur gi son amour premier c'est le communisme et il pas de communiste démocrate amul fi mu jëmee réew mi nag si on n'y prend pas garde dès présent jóg ci dox ci wax ci nous serons tout aussi responsables que lui ci li nar a xew ci réew mi attention nanu amin bu bu ñu nëbbante nous n'avons pas un démocrate à la tête de ce pays il n'a jamais été démocrate il ne croit même pas à la démocratie il n'y croit même pas c'est un communiste pur et dur Mao Zedong la gëm avec ses théories leneen lu mu ñeexul dëgg pire encore mu am in femme boo xam ne moo ko gën a assoiffé de pouvoir moo gën a obsédé de pouvoir ba pare nag dominer ko elle a pouvoir entre ses mains lii moo nekkoon sama yóbbalu tey gërëm leen sant leen ñaanal leen yàlla di ko sàkku ci yéen xam naa ni léegi ndogu jot foofa ca France Europe ak ko wër maa ngi nuyu sama mbokk yi nekk foofu yëpp di leen incha allah suba ci heure bi rek amaat beneen yóbbal bi yoon dañoo bëgg a wax ci gis ngeen keroog ma def ci benn benn sortie bu ndaw par rapport marché yi nga xam ne Sénégalais yi duñ ko jot mukk te pourtant am nañu xaram xarañ bi am nañu xam-xam bi boo déggee keroog ñu ne passeport yi dañ ko jox malaisiens yi depuis du temps de Ousmane Ngom pourquoi Sénégalais yi mënuñu malgré seeni xarañ malgré seeni xam-xam nguur gi leen wóoru leen jox yenn marché yi c'est parce que pot de vin yi ñuy laaj pot de vin yi ñuy laaj sénégalais yooyu amuñu ko te dinaa ci jox quelques quatre exemple benn bi ministre de ministère de l'énergie la woon benn bi au niveau de la Sénélec benn bi ci wàllu passeport yi carte yi ak benn bi ci wàllu permis yi pourquoi yooyu yëpp ay sénégalais taxawoon wante liñ leen laaj comme dessous de table comme pot de vin ñoom dañu amul woon lan moo tax Sénégal tey contrat bu muy signé mu nekk ay contrat yu xaw a exorbitant ci sunu bit c'est parce que li ñuy laaj ñooñu di signé ñooñu itam dañuy jël mujj jël loolu dugalaat ko ci contrat bi incha allah dañ ci dellu si suba ci kàttanu borom bi même heure ñu ngi leen ñaanal yàlla di ko sàkku ci yéen mu nekkoon seen xarit seen doomu day amaat Diouf depuis Houston Texas leen ñaanal ngeen àggali koor gi ci jàmm jërë ngeen jëf.